trabajar asalaamaaleykum yéen ñi ñuy sétane ci Dakar Actu TV tay xam ngeen né combat Eumeu sen Bombardier mo waral Dakar Actu déplacé wu fi ci Grand Mbao fi ñuy wowe gox bi fas yéene xool ana nan Eumeu sen di préparer euh, combat bi ñu duppé combat royal nga xam ne titre roi des arènes bi mo nek en jeu ba tax na ñu ñew fas yéene xool mi euh, ban anam yan disposition la jël euh, pour préparer combat bi nga xam ne moom la wara a bëreel ci ay waxtu yu néew ak Bombardier gis ngeen dispositif bi nga xam ne déployé nañ ko ngir mën a permettre organisation bi euh, jaar yoon xale yi ñu ngi fii mag ñi dëkkandoo yi ñëpp génn nañu ngir daal di euh, jàppale seen mbër gunge ko laata muy jëm fële ca euh, stade Léopold Sédar fi nga xam ne fa la war a jàmmaarloowee ak kii di B52 comme dégg ngeen ko supporters yi ñu ngi ñu ngi seen bopp voilà xam naa du ñàkk ci ay waxtu yu néew ah Eumeu Sène daal di génn. saafonte ak euh, supporter yi ba léegi ci wàccaayu combat Eumeu Sène Bombardier bi ñu ngi fii ci Grand Mbao ci gox bi taxaw ak kenn ci ñi nga xam ne dañoo ñëw fii fas yéene gunge seen mbër euh, ñuy euh, muy wuyoo turu Baye Fall sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay siyaar bu wér ba ñu ngi leen di delloo siyaar di rafetlu seen teewaay ndax Eumeu Sène moom. kep ku ko tewal rek do kan na mbeur bo xam si ne wax deug yalla mbeur la kenn ku nek xamé na ragné nañ ko ci biir arène bi donc liñ ko mëna ñaanal moy ndam rek. ñen supporter yi yan matuwaay ngeen jëm ngeen jël ngir mëna dem supporter seen mbeur ci jàmm ak eh, play wa non no violence rek no violence ah, dem ci wa ah, ah, ñu bis ci jàmm ak salam japp daan jël bu kenn dul wérante ndax roi bi dañ ko soxla xalé bi ñun ñoo mag euh, euh, Bombardier ñun mag ci ci ji donc euh, yàgg na ci jël yoon kon roi bi jombu ñu donc dañ ko soxla dañ ko soxla ndax dafa jot dafa jot si ñu ngi lay nuyu ngi di fay est-ce que mën nga ñu wax yeen fan ngeen joggé fas yeen ñew taxaw seen bëtt ji tay wa man Pikine lox kër léegi ñu dëkk mbaaw nu ñëwaat daje fi loolu la yàlla def. tey nan ngeen euh, fas yéene taxawu gunge seen mbër ba yóbbu ko stade. ama seen dañ ko bëgg a gunge ndax yaru na teey na am na yëg si doom aadama am na yëg ci nit ndax bu nu bokkoon dëkk Pikine mu jóge Pikine ñoo faalew ma man duma ko faale waaye ku ma la ku ma ndax ku ja jabaram yaayam ak Ndey Jóob sama mag ñooy ànd ba ni mu demee Italie loolu laa xam si ëmma ma xam si moom baax ax yaru ax tee ñu koy ñaanal yàlla mu andi ndam li mbaaw soog a dem Pikine wasalaam. ngeen combat bu metti di leen xaar seen diggante ak Bombardier est-ce que yaakaar ngeen ni seen mbër titre roi des arènes bi bëgg war na ko mën a indaale tey. war na kaa mën a indaale ndax ragal du jéggi raay te ëmma doomu Pikine la tay si ga dof du wér xam nga yow ma waxee ndax Pikine laa dëkk. waaw euh, ngeen ko am nañ yaakaar si seen mbër bi tey. mu indil leen ndam lu yaatu daal di indi roi des arènes bi nga xam ne waa Pikine ak supporteru Eumeu Sène di jaamu Eumeu Sène Samba Xoyaana jur sama yaay. Demba Ngom ak Demba Ngor Mbay Demba Faritanu kuma maa jigéen Diop maa mel ne Samba ak bokk dig sax la yam tool Eumeu jàmm rek lay am ndax asan gom bayam momit donon ko xamne day bay bi ji seex ñu dëkk ginaaw raay ci dëkkin bu rafet. fi ban dispositif ñan taw yan ngeen tek pour pour gunge mi ah, gis nañ ne gis nañ né am ay togg yu ñuy togg lan ngeen organiser lan ngeen pare pour gëna gungé seen mbeur waaw ñun dañoo xey rek xam nga boy waajal sa mbeur do ko waajal ci bës bi rek démb dañoo xey def ba baax togg ci bi wéx bégal xalé yi defal koy saraxam. ngoon ñu def cere ndax cere suñu aada la cere dugub ku ne xam na ne day suuxat ñu xëy tey nag daal def suñu ceebu yàpp yu baax def mbaxalu yàpp parce que mbaxalu yàpp loolu ah dina baax ci xale yu ndaw yi baax na ci mag ñi ndax activité la ñu bëgg a àndal suñu mbër day am ndam yow dinañ jàkkaarloowaat nga xam ne lépp dëgg la. préparé yokk ci li ñu doon préparé rek parce que dañu yàgg bëgg roi bi di ñaan yàlla may ko ndam ci kàttanu yàlla ak yonent bi instant bi ñun ñu ngi taxaw fii mais am na ci xam ne ñun sax xamuñu ko ñoo taxaw nii rek pour gérer kii bi quoi sécurité bi. a feesal ko rek parce que xam nga Pikine moom daanaka mooy mooy Ndakaaru Pikine Petit Mbaaw te ngay li wër dëkk bi yëpp Eumeu seen la ñuy supporter Dakar Yoff ñëpp Dakar yëpp Eumeu Sène la ñuy supporter di ko ñaanal ndam rek ci kàttanu yàlla. ñun bis bi moom lim ñuy jaral mooy gaynde lañu yor ñun duñ mës a hésité ci suñu mbër bu doon bëreeg ñetti nit xam nañ ki ñu yor yàgg na daan ponkal. waaw loolu waxu làmb la rek mais Eumeu Sène ku dajeeg moom di nga bëre te dàqu ñoo bëre te kattan ji ñu yaakaar it naa ne ëpp ñu ko incha allah lépp dina baax am nañu yaakaar bu baax a baax ci moom. incha allah rabi dañ koy wàcce facilement fii lay bàyyi affaire yi wallahi lazim du caaxaan fii la koy bàyyi. ci bëre lay jeexee wala. ñun lépp lañ préparé danañ koy wàcce facilement incha allah rabi. day xool li ma la wax rek yéen waa Dakar Actu di ngeen gis loolu mosul gis tey di su xeexee daanu taxawee daanu. su avancé daanu ñett yooyu yëpp ay série la ñu ngi ko teg benn bu mu ci def rek ñu ngi koy xaar bu xeexee daanu bu taxawee daanu bu songee daanu bu reculer daanu amul lum ñu dàq lépp ñu ngi koy xaar ci moom yàlla na ko yàlla na ko seet dafa ñoo dëkk benn koñ ñoo jàkkaarloo éppé mu nekk fi mook soxnaam xuj bi ñu baax yaru teg ñu kom kilifa lu ñuy def ñëw wax ak ñun diisoo ñun jaxasu ak suñu njaboot ñun lébu ku ñu yëg rek ñu yëg la dañu ñëw mélangé wax ñun am ma doo wàcc boppam ba ci suuf fii lay nekk di veillé xale yi ba asamaan set jël léppam jox ñu mbaaw gépp ak gox bi yëpp ñu ngi and ak ëmma di ko ñaanal yalla naka yalla may ndam yalla naka yalla dafa jamm xalé gox bi yëpp ñu ngi ni presque mbaaw yëpp ñu ngi ni top ci gannaawam. bu ngeen ñu laaje ci ëmma dañ ci sawara wax da ëmma ni ka maire bi waxe rek non la amé dafa toxu su fekk ñu fi ci gox bi nu nu ñu bu la rombé ak fu la mëna romba dina droit ci autom wàccee véram nu yox yow nuyu la nuyu gu baax gu tenté wul vitram defu ka vitre bi la detee tew ko may nañu jàmm may ñu salaam ñun ñëpp dañu am ay ngénti ay mariage waaye talu ñoo dam ndax am ma seen xujja may nañu jàmm may ñu salaam yëg ñu faale ñu yëg suñuy doom na nit ki boo yëgee doomam rek yëg nga ko may nañu jàmm may ndam yàlla na ko yàlla may dañuy ñaan nag si barke Seydina Limaam ñu ngi ñaan Bamba ndam bu dee benn yàlla na ko yàlla may